billahi min asheytaan rajim wa inni uhizuha bika wa zuriyataha min asheytaan rajim rabbi aouzu bika min amajati shatimi wa aouzu bika rabbi an yaxduruni bismillahi rahmani rahim allahuma bi jaayi rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam salli wa sallim wa barik ala sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman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 ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaar fépp fu ngeen mën a nekk ci gox yu façon yi di sant bu baax rek ci ñi ngeen di toppee émission yi rajo xasida online rawatina lii di émission daarul xasanaat di leen ñaanal jàmm rek di ñaan suñu borom wàcc jàmm ci jullit ñi wàcc ko wàcc tawfeex ci jullit ñi wàcc yërmandem ci jullit ñi ban tegu ñun ñëpp rek ci siraatal mustaqim waaye rek ñun ñëpp suñuy mbir ñoŋ àdduna waaye suñu mbir ñoŋ yowmal xiyam ziare bu baax rek ñi nga xamante ni rek ñoom tam ñoo ngi seq ñoom liggéey bi eh, di ci jiita rek suñu jëwriñ Cheikh Ibrahima Khalil waaye di ziare ba tey rek sëriñ Moustapha Jaxate Kamal daalul xasanaat kon ngeen mën ko am rek bés bu jot rek bu juróom-ñaari waxtu jotee ci Europe Italie bu tegalee fanweeri simili muy 19h30 fii ci Europe Italie muy euh, émission bi nga xamante rek moo di saytu tomb bi sunu sang sunu sëriñ Seexul Xadim muy tomb yi ma leen waxoon rek ni tomb yi la yoo xamante ni daanu ko ja tombal ñam jamonoonteel waaye di ci bàyyi xel régénération yi nga xamante rek dina ñëw ndax xam na ni xamoon na ni jafe-jafe yi àdduna dana dox ba ñu yegg ci wax dëgg di jàngat loo xamante ni dinañu jëriñ dana dana ràpp lool waaye xamoon na ni jamono ji jamono ju rafle ay jikko yu rafet la xamoon na ni tam jamono yu rafle ay njiit yu digle ci yoon la njiit yoo xamante ni danañ wax jëmale ci diine waaye njiit yoo xamante ni danañ wax jëmale ci jëmale ci lislaam xamoon na ni jamono ju rafle la yoo xamante ni maanaam nit ñi nga xamante rek ñi ngi boole sax di ànd dañuy ànd te dañuy ànd ngir jëmmi suñ borom waaye dañuy ànd rek ngir jëmmi intérêt yi li ñuy wax intérêt personnel wala rek ay poñetum àdduna nit ñi nga xam ne ñu ngi ànd rek dootu ñu waxante dëgg xamoon na ni jamono joo xamante la wax dëgg yàlla jamono ju tumuranke lépp lu baax la jamono ju tumuranke lépp lu loo xamante ni mi ngi euh, maanaam aju si diine la ba tax na mu doon bàyyi xel ñooñi di leen defal li nga xamante rek moo di ay tomb waaye muy tomb yoo xamante ni rek euh, ñu ko saytu ba daf ko ci téere nit ñi di ko mën a jàng ñooñu tam kenn amut seen fay ndax nag sëriñ bi rek li mu daan wax maanaam layoon na ma ak yéen eh, maanaam wax naa ngeen dëgg ma jëf ngeen gis ma bind bàyyi fii loolu rek kon mooy li nga xamante rek buñ ci tënkoo xëy na ak ànd ceeg yërmande suñ borom wax dëgg sunu àdduna dana baax waaye suñu yomal am dana baax kon nan fas yéene nekk ci li nga xamante rek moo di ndigali Serigne Touba waaye nekk ci li nga xamante rek moom la fi daan jëf waaye di yër li nga xamante rek daana ko bind te bàyyi ko fi dañ koy jëfe rek loolu daanaka mooy li nga xamante rek mooy li nga xamante ni ci leen war a tënku taalibe yëpp ci leen war a tënku waaye di ci laabire képp koo xamante daal jot nga ci yooyu nga fexe ba sa moroomum jullit sa moroomum taalibe jot ci ba mën a daw jëm ci ndax it nag lu baax dafa yombut tey tuyaaba jafe lool waaye mu doon loo xamante ni mënta ñàkk ndax nag loolu yi daanaka ku ko ñàkk sa dara du baax àdduna sa dara du baax alaxira yal nañ ci yàlla musal kon daal nañ fexe ba xool ñi nga xamante ne rek ngi ànd ak ñoom xool ñi nga xamante ne rek ñu ngi digal lu baax xool ñi nga xamante ne ñu ngi wax woo ci lu baax ngir ñu mën a daw jëm ca ngir ñu mën a daw rek jëf ko ngir nag loolu rek mooy li nga xamante ne rek moo ni jariñ tey waaye moo ni jariñ lëkk kon ñu dugg rek ci solo émission bi tey nag tomb bi moom dafa doon tomb boo xamante rek daanaka jàpp naa ni dañ ci wax rek maanaam jaar ci rek li ci def ñu bàyyi leen ko kenn ku ne rek natt ci sa bopp kenn ku ne rek xool noo tooge ci boobu tomb kenn ku ne rek maanaam utiliser sa xel te xam ni daal tomb boobu rek daanaka mooy li ëmb àdduna mooy li nga xamante ne moo ëmb doomu aadama ma jàpp ne rek képp koo xamante ni tënku na ci daal dana ci bàyyi xel dana tax rek yu bari yoo xamante ni ñu ngi koy jëf yu bari yoo xamante ni ñu ngi koy wax waaye wala ñu loo xamante ni ña ngay dox jëm rek bu amte ngërëmul yàlla donte ku jaamu yàlla daanaka ñoo ngi yàq sunu temps ñoo ngi eh, li ñuy wax rek rey sunu temps ci loo xamante ni daanaka amul luñ njëriñ kon ñu dugg rek ci solob émission Daarul Xasanaat di tom bi sunu sang sunu sëriñ Seexul Xadim Sëriñ Tuubaa nee na nit ku nekk boppam laam ak i bokkam ak alalam ak jëfam boppam bi bu tawatee ba xàmmeetul ñamu neex ak jigéen ju rafet ñàkk na ko mbokk moo fa fës mbokkam moomee bu ko taxawoo ca tawat ga ba jébbal ko boromam ñàkk na ko alalam moo fa fës alalam joojee buñ ca fay ay borom la ca des bokk see benn ko ñàkk na ko jëfam moo fa fës jëfam joojee bu dee lu baax du ko gis lu ko naqari bu dee ab safaan waliyaasu billah loolu ay waxama radiyallahu taala anhu kon moo baamtuwaat ko fàttali leen rek yéen a ngi ci émission Daaru Xasanaat kaddu gi bàyyi ko fii ci Touba Milano ci micro bi seen mbokkum taalibi ndongal ndongal yi ma lëkkaloog ci xarala gi Thiam Baye Fall kon sunu sang sunu sëriñ sunu wasila sunu yaakaar Cheikh Ahmadul Xadim Xadim Rasul nee nit ku nekk boppam la am ak i bokkam ak alalam ak jëfam boppam bi bu tawatee ba xàmmeetul ñam wu neex ak jigéen ju rafet ñàkk na ko mbokk moom fafës mbokkam moomee bu ko taxawoo ca tawat ja ba jébbal ko boromam ñàkk na ko alalam moo fafës alalam joojee buñ ca fayee ay borom la ca des bokk ya donn ko ñàkk na ko jëfe moo fafës jëfam joojee bu dee lu baax du ca gis lu ko naqari bu dee ab safaan wala yaasu billah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi tomb boobu rek tey moom lañ leen baaxe ci daarul xasanaat xanaa rek wax leen ne daal na kenn ku ne rek natt ci sa bopp xam ne loolu rek mooy li nga xamante ni mooy yi nu yiir ndax doomu adama moom jëmmam la am alalam ak mbokk yi nga xamante ni fàggu ko suñ borom a ko ko dogal ak li nga xamante rek moo di jëfam jëf ji nag moo ko gàddul boppam moo koy defal boppam alal jeet yaa koy liggéeyal sa bopp ci saw ñaq ci kàttanu yàlla muy sa wërsëg ba tax na ni nga koy wute kon jar naa rafetal alal jooji ni nga koy wute jar naa rafetal taxit nag ginnaaw da nga ko fi bàyyi rek te ñeneen dong sax ñoo koy jariñoo kon jàpp naa ni boo ko amee rek war nga cee dox jëm ci suñ boroom maanaam liggéeyal ci yàlla boo ko amee daal war nga cee def lu rafet boo ko amee daal war nga ko bokk ak say bokk waaye war nga cee defal diine ndax nag li nga xamante ni daal moo fi ne moo di ni gis nañ ni daal nit ñi ni ñu wute alal nañ ni daal nit ñi ñu di lool gis nañ ni daal ñu ngi faat ay bakkan ngir ngir alal gis ñoo xam ni sax ñu ngi yoole seen njaboot ngir alal gis ñoo xam ne ñu ngi ñàkk seen ngor ngir alal gis ñoo xamante ñu ngi ñàkk seen personnalité ngir alal gis ñoo xamante ni ñu ngi tàggale ay bokk ngir alal gis ñoo xamante ni seen diina wadd na ngir alal lu ko waral ngir maanaam ñu ngi topp ci ginnaaw ñoo xamante ni la ñuy def jubut la ñuy def sax daganut waaye ñu ngi leen koy daganalal waaye na leen maanaam topp seen ginnaaw daal mel ni ay dumuru ndax lan lu ko waral mooy ndax ndax ñooñu dañ leen yoral ab dépense wala ñooñu dañ leen yoral ab dund gis nañ ni daal nit ñi woyofal nañ diine ngir wutum alal gis na ni léegi fal nañ borom alal yi doy dal borom xam-xam yi gis nañ ni léegi yenn jàkka yi sax borom alal yi ñoo fay jiite doon seen xam-xam sax du ko mate gis nañ ni daal borom alal yi buñ xewlee seen seen seen seen bis yooyu day fees dell ci mbooloo gis nañ ni borom alal yi daal bu buñ wootee cumpo sax day fees dell fa ñuy wootee diine day tumuraanke fa ñuy wootee diine day rafle ndax loolu mooy àdduna ndax loolu mooy tax moo taxoon suñu borom wàcc ñu fi ndax loolu moo taxoon maanaam ñu fi jaar ak coono yi ñu daj muy yonent yi muy awliya yi muy saaba ya muy ñu baax ñi fi jaar muy sëriñ fii fi jaar ndax loolu moo waroon seen coono yan daj ngir ñun waaw ah, loolu nañ ci bàyyi xel nañ ci bàyyi xel tax xam ne alal ji fii lañ koy bàyyi alal ji ñun noo ko noo ko liggéey kon warta dem ba ñu doon ñu dem ba doon jaami alal yooyu ndax alal yi ay moyen la woon rek ngir ñu mën a maanaam eh, li wax eh, jàll yenn yenn yenn eh, jafe-jafe yi waaye bu suñ jëlee alal ji teg ko ca kaw suufeelal li nga xamante daal moo waroon a doon ay mandargay doomu aadama muy yar yar bu rafet muy jikko yu rafet muy diina ju rafet muy diina ju sell muy xel mu sell ñu jël tey ji alal ba teg ko ca kaw ba tax na ñu ngi boddikante ci biiru xeet di boddikante ci biiru bokk di boddikante ci biir maanaam diggante góor ak jigéen di boddikante diggante mag ak ndaw di boddikante diggante ñi nga xamante daal ñoo ŋànk diina ji tuutal leen ba tey jii ku leen wax dëgg ñu ñu ñu ñu la faat ngir alal jooji képp ku leen mën nar a xañ seen alal ji faat la ndax loolu moo taxoon suñu doom wàccuñu fi ndax loolu moo tax ñu bëggoon ni ñun ay taalibe leen alal ji dañ ko fi ba nañ ci liggéeyal suñu borom ci jaamam yi nañ ci liggéeyal Sëriñ Tuubaa ci taalibeem yi nañ leen dundal diina ci alal ji waaye tey jii boo demee ci daara yi boo demee ci daayira yi boo demee ci jàkka yi kees ya fa ne weccet rek la feese mu mel ni daal dafa mel ni billet moom defaratuñ ko dafa mel ni léegi billet defaratuñ ko boo jógee jëm ca daara ja weccet nga yor bàyyi portefeuille ba ci biir bàyyi portefeuille ba ca kër ga bàyyi billet ca kër ga weccet nga yor rek boo yeggee mbuus yi nii laaj daal da ngay dégg muy kasan kasan rek weccet képp ci ne te li ci ëpp la ñuy bàyyi sa kër ga jëmewuñ ko sax diine boo ko seetloo rek xoolal téléphone yi ñu yor rek ñaata yoon lañ ciy def crédit te bu doon dañ ciy wax farata sax waaye waxi kafe kafe rek lañ ciy wax lañ koy sarkee donte mënoon nañ caa jël léeg-léeg jëmale ko ci yoonu yàlla jëmale ko ci daayira yi dimbali ci doomu aadama yi nga xam ne ñu ngi koy téewoo baa boog léeg-léeg nga dugg ci yenn daayira yi xaalis ba ñuy ko fenn lu dut nit ay jege jege jege bi rek nax leen rek lekk ko ñu bàyyi doomu aadama yi bàyyi taalibe yi ñuy souffrir bàyyi nekk yi nga xamante ni am nañ ay besoin te lottu ca lool te mënuñu ko ndax ñàkkub liggéey ñu jël alal ja rek di ko dajale di koy jox ñoo xam ne sax léeg-léeg fan koy jëmee sax leer na leen ni jëmut ci diine jëmut ci yoonu Sëriñ Tuubaa bi loolu nañ ci bàyyi xel loolu nañ ci bàyyi xel tey waxante dëgg te yàlla tax ndax ànd bu dee dëgg lalu ko bu dee duñ waxante dëgg sëñ bi jarul ñuy ànd bu dee duñ laabirante ci li nga xamante ne mooy jariñ doomu aadama yi jarul ñuy ànd na kenn ku ne beru ndax nag ba ñu suñ borom bindee ñu wuute ba ñu si suñu borom bindee ñu doon ay xeetu wuute bind ñu ñu doon ay ay maanaam ay xeetu wuute ay dëkk yu wuute ay kàllaama yu wuute dafa bëggoon ñu booloo ngir mën a jëriñante waaye mënoon na kenn ku ne mu jox la la nga la nga la war ci yow dar la fële te du tee ngay dund du tee nga mën a mën a mën a ñoŋal sa bopp waaye dafa bëgg ñu booloo dafa bëgg ñu jaxasoo dimbalante te yàlla tax soññante te yàlla tax waxante dëgg te yàlla tax laabirante te yàlla tax. waaye léegi li ñu gis mooy kenn ko ne rek bopp sa bopp égoïsme rek sama sama sama rek sama jurul dakk te li ngay dajale fii rek nga koy baax loolu sa jëf lii suñ si Sëriñ Tuubaa wax ni sa jëf jooju bu dee lu baax doo ca gis lu la waaye bu dee safaan wala yaa sibilaay sa jëf rek nga yóbbu kon nañ daw jëm ci lu baax nañ daw jëfal lu baax nañ daw dimbalante ci ci ci ci loo xamante ni ci ngor la waaye ci dëgg la waaye ci diine la te dañu dimbalante ci noonoo ak luy tàggale ak mbokk loolu tey jii rek moo fi fës moo fi fës lool tàggale mbokk rek tàggale doomu aadama yi ànd rek xëy sol saw dàll yor saw làmmiñ njàmb rek ni ñiir yi ànd daal seen ànd bi danaa ko tas loolu rek moo fi ne léegi loolu rek moo fi ne te gaal gi ñu war maanaam gaal gu yor laaf la maanaam day watul sax ci biir géej gaal la gu yor laaf yoo xamante ni fa muy ak kenn xamu ko ndax nag nit ñaa ngi xëy rek nekk ci poñetum àdduna rek nekk ci seen bakkan rek nekk ci leen neex rek dëgleetuñ lu baax jëfatuñ lu baax waaye jëlee la naa loolu yamuñu ca képp kuy jëf lu baax dañ lay gàllankoor képp kuy wax lu baax dañ lay gàllankoor léegi boo yëkkatee sa kàddu tey jii rek taxaw ci rajo bi di wax di wax lu baax am na ci ñoo ne ni li ñuy déglu mooy du xool sax leneen jariñ wax ji déedéet nañ xool fa ngay damay yàq rek ngir ñu mën a woote mbaa mbaa ñu mën a wax mbaa ñu mën a critiquer duñ xool ni rek yow miy wax day maanaam fi xam-xam yam rek ngay waxee duñ xool ni yow miy wax day laaj rek képp nga ci jublu déedéet dañuy xool rek fa déglu rek ah nañ déglu tey sawaay lu muy wax ba xam yàlla rek a mat yàlla rek moo mat xam-xam yi ngeen yor te ngeen jàngoon ko te diine rek woon tax taxoon ñu dugal leen ca ba ngeen di ndaw ko ndaa ba toll fi ngeen toll waaye laabiri leen ci seen mbokk waaye bu leen ko téye taanaan moo ne wu ma wax waaye du ngeen ci am kuy wax ñu critiqué kuy wax rek ñu critiqué nañ leen dimbalante ci ci alal ji dimbalante ci xam-xam bi dimbalante ci doole ji waaye rek sa tërlu rek mënewuma wax man de li ma waroon li ma waroon wax gaa ñu wax nañ ko yaa tas dëkk bi boo waxee rek yaa tas dëkk bi nan jël suñu part de ci diine ji diine ji dañ ko fay wàcce kenn ku ne am loo ci war a bay am loo ci war a wax am loo ci war a jëf waaye lu ca manqué ëllëg yaraange rek lay jur lu ci manqué ëllëg yaraange rek lay jur kon mu fàttali dàmm bi Serigne Touba daal nee na nit ku nekk boppam la am ak ci bokkam ak alalam ak jëfam boppam bi bu tawatee ba xàmmeewul ne mu neex ak jigéen ju rafet ñàkk na ko mbokk ma fa sës mbokkam moomee bu ko taxawee ca tawat ja ba jébbal ko boromam ñàkk na ko alal ma fa sës alalam joojee buñ te fayee ay borom da ca des bokk donn ko ñàkk na ko jëfam ma fa sës jëfam joojee bu dee lu neex maanaam bu dee lu baax du ca gis lu ko naqari waaye bu dee safaan wal yaasu billah mbokki jullit nañ ci bàyyi xel te dimbalante rek te yàlla tax soññante te yàlla tax te xool ñu ni àndal bu dee ñu jubadi nañ leen teg fële bu dee ñu baax nag nañ leen gën a sopp tey dimbalante tey diglante lu baax te tereb safan te wàññi ab noonoo te wàññi ab ab xuloo wàññi ab ŋaayoo wàññi wëññe wëññente awra yu yu muy def wàññi wëñ wëññente maanaam sutura si suñ borom ma gën a xam lépp te te te waxu ko suñ borom a xam gën a xam lépp te wanewu ko waaye waaye ginnaaw am nga yooyu te nit ñi am nañuy làmb waxuñu ko te ngaa denc ay ayibu jàmbur yi te sax ci njëkk te say ndëm gi nga am yàlla baaxe ko nga denc ko nag fa ñuy wax rek seen maanaam denc ko ci sa dëgg ji ginnaaw ndax nit ñi taxaw nañ ci dindi ko jigéen ñi taxaw nañ ci jële fi diina ji alal ji taxaw na fi jële fi worma ji jële fi diina ji nañ ci bàyyi xel maa ngi dégg lu baax ci kàddu yi ginnaaw euh, waxtu yi nag dañoo dab ma wax dëgg ñaanal jullit ñëpp rek yàlla na ci borom wàcc jàmm ci jullit ñi di jaay saydil awalina wal axirina saydina muhammad rasulillahi sallallahu taala alihi wa sallam barke man soo Ibrahima Fall Mamour yi dina wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu